le mouvement Africa First bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ñoo doon amal ni gi tey yemoo ko fukki fan ak benn ci weeru mai ndaje ngir fàttaliku seen mbokk seen xarit doon wuyo ci turu Omar Blondin Diop nga xam ne génnub àdduna mu ñu ngi ko weer ci ab assassinat si ba mu nekkee prison étudiant yu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru yi nag amaloon nañu jàngop alxuraan ngir ñaanal ko waaye ñu toftal ci rekk ab benn benn marche dooree ko buntu université Cheikh Anta jobu Ndakaaru ngir jëm fi nga xam ne mooy armeer yu Soumbédioune ngir ziar Omar Blondin Diop mu mel ni rek étudiant yu université Cheikh Anta Diop mu ndakaaru góor ak jigéen teewoon nañu en masse di sàkku ci état bu Sénégal mu ubbiwaat dossier bu feu Omar Blondin Diop pour honorer li nga xamante ne mooy mémoire am waaye itam dédié ko un édifice public ngir jëmbal ko te delloo ko njukkal ci combat bi nga xamante ne mu ngi ko doon mëne ci réewum Sénégal. tey nag dañoo jóg pour la première fois dans l'histoire organiser benn ndaje boo xamante ni euh, liñ ci jublu rek mooy commémorer maanaam màggal ki nga xamante ni mooy Omar Blondin Diop nga xam jotoon na lakku ci atu 1973 fi nga xamante ni mooy ci prison bu gore Euh, tey nag ci suba ànd nañ seek euh, njabootam maanaam euh, membre de famille am ki ci ki ci mel ni magam bu góor bu tudd alin Diop ak Ousmane Diop nga xamante ni mooy seen taaw commencé benn ristal de Coran boo xamante ni maanaam benn jàngu alxuraan boo xam ñoo ko doon defee fële ci université Pavillon A bi ñu fa jógee tamit ñu ànd ñun ñëpp def benn marche maanaam benn pèlerinage jóge université ñëw ba fii ni nga xamante ni moom mooy fi ñu ko fi ñu ko dënse muy cimetière bu Soumbédioune ngir ñaanal ko ngir yàlla xare ko aljanna donc bu ñu jógee nag ci ñaan yooyu noonu li ñuy réclamer rek lenn la rek mooy que état du Sénégal ubbi waat dossier bi nga xamante ni mooy dossier Omar Blondin Diop parce que mënuñ nangu Omar Blondin Diop xam-xam gi mu amoon dayu gi mu amoon mu mën a nekk koo xamante ni kuy xarulo donc thèse boobu lañ avancé te xam nañ ne thèse boobu nekk loo xamante ni luñ mun a luñ mun a nangu la parce que ñu munul tam gënum luñ munul toon nangu tam ci jamono ji jooju mooy que Sénégal euh, quelques années après suñu indépendance ñu am premier ministre français Jean Collin te jàpp naa ne tam Jean Collin boobu noonu bokk na ci li nga xam wala loxoom gënul ci li nga xamante ni moom moo faat ki nga xamante ni mooy Omar Blondin Diop moo tax en tant que mouvement panafricaniste ñu ne kat état du Sénégal bëgg nañ wax dëgg fa ñu ouvrir waa ñu réouvrir dossier bi ba ñu ci gën a mën leeral ñu xam exactement Omar Blondin Diop lan moo ko faat bu ñu jógee ci loolu tam dañuy waxaat toujours toujours tam état du Sénégal jàpp naa ne combat bi ñuy mëne ñoom tam seen combat la ñu xool tamit ban barab la ñu tuddee Omar Blondin Diop ngir sax taaral ko jëmmal ko vraiment jox ko gëdd gi nga xamante ni am na ko fii ci réew parce que mënuñ nangu ay tubaab ñoo xam dañoo yàgg a toroxal yàggu ñoo noot am fi ay turu université ay turu mbedd ay turu avenue ay turu place ay statut fii si suñu réew alors que tey am nañ ay doom réew mi ñoo xamante ni jot nañ yàgg xeexal askan wi ngir indépendance ngir souveraineté ngir justice ngir ngir égalité euh, te ñoom amuñ loolu parce que euh, tey jii nii Omar Blondin joob jot na ñu tuddee ko wax dëgg fa yàlla benn université benn mbedd benn avenue wala daal loo xamante ni day gën a taaral day gën a jëmal dara jàmm bu ñu fa jógee tamit dañuy ñaax ndaw ñi maanaam ndaw Sénégal ndaw Afrique buñ nangu di jël ay repères feneen jàpp naa ne tey suñu réew am nañ fi ay ay repères ay modèles ay références ñoo xamante ni jàpp nañu buñ tënkoo ñoom ci seen jàngale ci seen digle ci seen xam-xam ak ci seen démarche rek mun naa ne dinañ mun a am ay jeunes yu engagé ba mun a jóg xeex ngir génne suñu réew suñu askan ak Afrique ci guuta gi nga xamante ni la nekk ci ay at boobu ba tey. Omar ne Diop mi nga xamante ni si moom la ñuy màggal tey dafa nekkoon koo xamante ni si tey euh, da doon xeexal askanam bëggoon askanam jógoon ngir. taxaw ay ñoñam mu jaraloon ko bi mu demee France réussir concours boo xam ne Senghor sax réussir ko mu nekkoon concours boo xam ne c'était très sélectif maanaam ñi ko doon jàll bëriwul mais mu jaral ko mu bàyyi léppam ngir xeexal askanam ba ñu jëlee ko France en 1969 indi ko Sénégal bi ñu ko indee Sénégal tamit terewul mu continuer combat boobu noonu ngir nooteel bi nga xamante ni sii tey France nootoon na ko Sénégal ci wàllu économie ci wàllu souveraineté nga xam ne suñu président bi fi nekkoon dafa jëloon yëpp jox ko France loolu la Omar Blondin Diop doon xeex li tey ñi ñuy li nga xamante si ñun ñu ngi koy xeex yeneen euh, ay mouvement di ko xeex muy suñu souveraineté économique ci suñu souveraineté si lépp loolu la Omar Blondin Diop doon xeex loolu moo ko taxoon a jóg te loolu moo tax tamit nguur gi fi nekkoon fexeel ko parce que xamoon nañ ne Omar Blondin Diop mi mën na leen ebbe ay ay ay ay ay problème te même bi ñu ko faatee euh, peuple sénégalais jóg na ngir xeex loolu noonu ngir justice mën a am ba armee française lañ mujjee woo pour mu indiwaat ordre donc nekkoon na koo xamante ni si vraiment lépp lu lu mu ñàkk ci am rek askanam moo ko ko jaraloon ki nga xam ne mooy wuyoo ci turu Florian Bobin di ab tubaab ànd na ci li nga xam ni moom la panafricaniste yi wax jëmale ci ki nga xamante ne mooy feu Omar Blondin Diop. Euh, xew bi euh, ci euh, Africa First dafa am solo lool ndaxte Omar Blondin Diop mooy benn nit qui marqué l'histoire du Sénégal. ak euh, dafa am solo tamit euh, euh, ubbi ubbi na wóot wóot eh, pardon ubbi wóot dossier bi c'est important de de de de réhabiliter sa mémoire euh, et que vraiment les Sénégalais, les Africains connaissent son histoire parce que son histoire est passionnante, elle est ancrée dans un contexte révolutionnaire vraiment passionnant et les revendications qui étaient les siennes à l'époque sont toujours très d'actualité aujourd'hui. si fàttali ki nga xamante ne mooy Omar Blondin Diop mu ngi gane àdduna le 18 septembre 1946 à Niamey moom mi nag di Omar Blondin Diop mu ngi dëddu àdduna si prison bi nga xamante ne moo nekkoon fële ca île de Gorée bu Sénégal